heure bi waaw mbokk yi euh, mi ngi noonu ñu ngi fi xamante mooy maire Mermoz bu lim Dias gars yi force de ak ñu ak waa waa kër Batim Diagne ñoo sant ay xeer am na benn 4x4 bu ñu toj nag moo leen leen wan nii 4 x bi nga xamante ni 4x4 kenn xamul ko ko fi gaare mais Mitsubishi la bu bu gris yi teg toj ñu toj nañu ginnaaw ak kanam euh, ça veut mooy si aile bi ak si ginnaaw boo xoolee ndeysaan kii xam naa borom sax nekku fi gars yi toj nañu otoom te lii def nii xam naa borom bu ñëwee dina xaw am lu ko metti tu vois euh, euh, mi ngi nii. mi ngi ñu toj oto euh, muy marque Peugeot Peugeot DK 67 67 BD xam naa borom bu ñëwee dina xaw a doy waax si moom trop trop trop ndax gars toj nañu oto bi ah xeer yi ñu doon sanante moo toj oto bi ah, mi ngi noonu junior gis nga oto baa ngi toj euh, toj pare-brise arrière bi ak bi si aile bi muy DK DK 67 67 BD. parce que force de l'ordre yi ak gars yi doon xeex euh, ñu sànni xeer yi mu toj te borom kenn xamul fu mu ne ba léegi borom kenn xamul fu mu ne benn Pajero la Mitsubishi waaw mi ngi noonu euh, ba léegi ñu ngi si maire yi Barthélémy Dias sa force yi ñu ngi fi taxaw ba léegi di xaar waaw ba léegi gars yi ñu ngi si biir maire bi. point de presse bi nga xamante moom la woote xam naa ni daal euh, doy na waar oto yi fi taxaw dara wóoru ci ndax xeer yi sànni. boo xool ñu ngi nii dem si maire bi nag gars gaay dañu woote point de presse waaw dañu point de presse ñu ngi dugg si biir maire bi fi nga xamante ni mooy euh, maire yi Barthélémy bi ñu ngi nii di dem si pour def point de presse bi. ñooy def point de presse pour alerter donc donc l'opinion nationale et la communauté internationale ñëw leen léegi-léegi ci point de presse lépp dina gën a leer incha allah. dégg ngeen Konaré mooy wax noonu nee na gars yi nañ def point de presse si biir ñoo ngi noonu en fas force de l'ordre yi ñaa si biti taxaw mais ñu ngi nii dugg si biir maire bi nga xamante ne mooy maire Barthélémy Dias pour def point de presse bi. ñu ngi nii pour def point de presse bi gars yi ngi nii raak doon ba sant toog nii ñi di lekk mad ñi ngi jaaxle ndeysaan

C'est bon. ñu def français ba pare. bu fekkee taw bi ñu def français ba pare. tu vas mobiliser les femmes. allo man mii ngay voyagé. oui nga dégg. Seydou oui naka mu. naka Pire ça va bien. am na poste wala 200 rek. non bien sûr. nga ne wala 200. man day dem. Pape mais bu leen ma bàyyi. ah dina ma bëri ci biir bu buntu kër yi. dégg nga bu génn rek kër yi ci tali. train de faire une déclaration de presse actuellement. Nous, nous, nous, ok, c'est bon. Ok, merci. Merci. Il vient d'être libéré. Il vient d'être libéré. Il vient d'être libéré. Fatima, effectivement, nous connaissons très bientôt. Il a, il a confirmé, non Nous, on va juste revenir sur l'événement aujourd'hui et surtout sur la justice. on a même l'autre candidat, ce pas la peine de se Non, non, non. On dit à d'autres de marcher ce qu'on nous demande. Et c'est un droit consacré par la Constitution, le droit à la marche. C'est pas une caravane, c'est pas un truc. Nous marchons. Et puis c'était un truc pour distribuer aussi des journalistes hmm. pour, pour informer les Sénégalais du meeting. Si. buur ana mu tey ba mu gis. buur est-ce que moo gis Dakar ba.

benn point de presse pour dénoncer ce qui se passe waa hmm? département on en avait discuté je, je, je vais te revenir tout à l'heure

ci ci ginnaaw na comment on va commencer on commence en wolof on commence en français ok on termine en voilà moi je fais le français toi tu fais le wolof Bassirou va parler pour les jeunes l'autre va parler pour les femmes c'est bon ma bàyyi la nga introduire voilà ginnaaw bi ñu leen sant gërëm leen ci point de presse bi jarul sax ñu ciy dellu siwaat parce que li fi xew ñun ñëpp ko dundandoo ñun ñëpp ko gisandoo mais day am solo ñu wax ak askanu ndakaaru waaye wax ak senegal yi nekk ci diaspora bi ci li xew ci ndakaaru ci bisu tey bi defoon nañu ni xeex yi ñuy xeex yëpp pour démocratie jëm ci kanam pour ya àq ak yelleefu doomu aadama ñu mën sàmmanteeg moom yu mel nii dootul am ci réewu Sénégal Barthélémy Diaz di maire Mermoz Sacré-Cœur di candidat coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar ànd ak ñooñoom génn këram doxul sax lu mat juróomi mètre ñu provoqué ko ko pamti pamtee ko jàpp ko yóbbu ko police ràcc loolu dañu yaakaaroon ni jeex na ci réew mais surtout façon biñ ko jàppee façon biñ ko téyee mel ni kuy jàpp woyu wala ab sàcc wala rey nit loolu la xel mënul nangu te loolu ñi nga xam ne seen liggéey moo màcc ci sàmmonteeg ak ak yelleefu doomu aadama war nañ ci àddu moo tax bañ ko téyee ñu jàpp ni nañ ko téyee diw yoon la ñu jóg ñun ñëpp màbb dem ca commissariat police jëppal pour xool ko mais mënuñu ko gis ñu ñuy wax ni am na ay xibaar yu jot ci kaw foofu la ñoo mel ni kuy fowantoo ay xalel indi seen ay auto police teg ko ci bunt bi pour dàqu soupçon ndeke jaarale nañ ko ci beneen bunt bi dugal ko ci auto gendarmerie yóbbu ko mais ci benn réew la ñu nekk ana démocratie bi ñuy wax ana état de droit bi ñuy wax surtout ci jamono yi nga xam ne ñu ngi dëgmal ay élection am na ñu mu war jagoonteeg ci ville de Dakar ñi ngi def lu ñu mel te puso wokku leen kenn waxu leen kenn tiisu leen kenn taasu leen lu tax bu Barthélemy Dias génnee rek ñu ni ko doo génn bu waree dox ñu ni ko doo dox depuis kañ la dox dem ci askan wi nemmante askan wi nekk bill depuis kañ li ñuy wax duñu ko nangu kumba mu am ndey ak kumba mu am ndey duñu ko nangu ci réew mi nañu yemale ñëpp tëdd tëdd tëddaayu njaaxaan léegi nag lii ñuy wax tàyyi nañu ci wax ji léegi jëf la ñuy def lii am wala li nar a am duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba lu mu leen jaral nag dañu ko jaral ñun lii nag tàmbali la rek moo tax may wax nit ñi ñu delloo ci seen xel may wax aussi suñu frère d'armes amuñu benn xarma yàlla ak ñoom commandement lañu nekk mais même bu ñu nekk ci commandement am nañu lu ñu war a liggéey avec professionnalisme ci dal ci tey ci sago ci wax nit ñi wax yu sell booy jàpp ni sax dafa am noo koy jàppe waaye di ko pëñe di ko pes di ko mbaj di ko gëdd loolu ak ak yelleefu doomu aadama ñi ci liggéey war nañ ci ak lii nag tàmbali woon la pour doxoon ci ak askanu Ndakaaru lu ñu façon yéene def tey suba ak gannaaw suba ngir meeting d'investiture bi nga xam ne moom la ñu dëgmal bëgg def la dimanche mais bi fi am lay Wade nekkee sax am na loo xam ne dafa nekkoon ñagas-ñagas ci réew mi dañ ñu woon jaratul sax autorisation information la rek mooy ay activité comme lu mel ni meeting wala ay caravane mais ñun meetinguñu caravane nañu dañuy dox pour nemmeeku askan wi pour euh, jokkante ak askan wi mais loolu lu ci ay ñëpp ngi dox waaye na ñëpp dox waaye Barthélemy Diaz wala waa kër Barthélemy Diaz duñu dox loolu duñu ko nangu gis nañu ay samba boy xam ne ñu ngi dox di dem ak a te kenn waxu leen dara kon bu ñu doxee bu ñu mënul encadrer nañ ñu bàyyi suñu dox ndax fa ñuy dox ñeme nañ koo xam nañ ko askan wi lañuy ñuy fekki askan wi lañuy ñuy nemmanti ko askan wi la ñuy waxal lii dama bëgg mu dakk bis na que tey plus jamais sax plus jamais mënatuñu nangu lii trop c'est trop te lu ëpp tuuru loolu la walla fi di jot nañu ci wewu béy xibaar boo xam ñi ngi naan bàyyi nañu Barthélemy Dias mais ñun mënuñu ko gëm fekk gisuñu ko te buñ ko gisee aussi loolu mënul faj mer gi nga xam ne moo nekk ci ñun waruñu ko woon téye sax ba ko bàyyi bu ñu toogoon trois minutes de plus fekk Barthélemy Dias ci biir këram mais fan la ñu nekk ci ban réew la ñu nekk trop c'est trop plus jamais ça en tout cas ci turu yeewi askan wi ñu ngi dénoncer li nga xam ni xew na tey et dootuñu nangu aussi lu mel ñu koy dundaat fii ci Ndakaaru ak feneen fu dul Ndakaaru léegi ñu ngi bàyyi kàddu gi suñu naataangoo Abbas Fall coalition yeewi askan wi aussi mu ñëw yéen ci kàllaamay nasaraan ci li nga xam ne moom la ñu dund tey te ñun ñëpp ñu fekk ko ñun ñëpp ñu teew ko ñaaw na rafetul dëppawul ak Sénégal ak taxawaay bi nga xam ne Sénégal moom la war a jërëjëf. merci monsieur le maire et par ailleurs coordonnateur départemental de la coalition Yewwi Askan Wi de Dakar je vais essayer en quelques mots de transcrire le message qu'il vient de délivrer en français vous l'avez constaté tous aujourd'hui le maire Barthélémy Diaz qui est maire d'une commune est par ailleurs candidat de la coalition Yewi Askanui à Dakar, avait décidé de faire ce qu'on appelle un dormbok avec tous les membres de la coalition au niveau départemental. Vous, journalistes qui étiez sur le terrain ce matin, avez constaté la brutalité et la célérité avec laquelle le cortège du maire Barthélémy Diaz a été arrêté. Et lui sur les images, a été de violences policières. Parce que la brutalité avec laquelle il a été arrêté est inadmissible. De quoi sagissait Tout simplement d'une campagne qui va permettre au maire Barthélémy Diaz et aux 19 candidats la commune de Dakar d'informer les Dakarois du meeting qui doit se tenir le 21 novembre 2021 au terrain de Kharial. Et ce qui est grave, c'est que M. Barthélémy Diaz a été arrêté dans sa commune, non loin de chez lui. Nous trouvons cela inadmissible. Dans quel pays sommes-nous pour permettre à certains candidats de descendre dans la rue de faire son dox son dox mbokk d'aller voir les Dakarois et et, de, de, de, de ça à un autre candidat. Y a-t-il dans ce pays une justice à deux vitesses? Y a-t-il des citoyens qui ont des chèques à blanc, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, alors que d'autres sont toujours contraints à, à, à, à certaines règles? Nous ne pouvons plus continuer à accepter cet état de fait. Nous demandons à la police de rester plus professionnelle. On ne peut pas arrêter comme ça un candidat et de surcroît un maire d'une commune comme un vulgaire malfrat. Cela est inadmissible. Et tout à l'heure aussi, la police s'est permise de charger même la commune de Mermoz-Sacré-Cœur parce que tout simplement, les jeunes étaient descendus pour demander la libération du maire Barthélémy Diaz. Nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Et nous demandons aux autorités de ce pays d'être beaucoup plus sérieuses. Nous demandons aux partenaires sociaux de parler à Macky Sall et à son régime. On ne peut pas interdire à un citoyen, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, de faire valoir un droit garanti par la Constitution. Demain, nous tenons à le dire, nous allons continuer notre Soit on l'accepte pour tout le monde, soit on l'interdit à tout le monde. C'est le message que nous, nous faire passer. Il n'est pas accepté et que demain, qu'on ne la même chose. La police n'a qu'à nous comme il l'a fait pour d'autres candidats que vous avez vus, je, euh, avec même une escorte policière. Et à nous Parce que nous savons pourquoi on ne veut pas qu'on s'approche des Sénégalais. Parce que ces élections, nous les avons déjà gagnées. Nous tenons à le dire encore une fois et nous le répétons. Demain encore, nous serons, nous tous, au niveau de la coordination départementale de Yewi Askanui, nous serons dans la rue uniquement pour distribuer nos flyers, parler aux Dakarois de ce que nous, nous comptons faire de Dakar, Inch'Allah, si nous gagnons, et le 23 janvier 2021. Monsieur le maire, je pense que c'est bon. On vient de nous dire qu'il a été libéré et qu'il est chez lui. Nous attendons de toute façon, monsieur le maire n'a pas... Non, nous ne confirmons absolument rien parce que monsieur le maire, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore... Voilà. Donc, nous attendons lui-même qu'il appelle pour nous dire effectivement qu'il a été libéré. Mais même s'il était libéré, il ne devait même pas être arrêté pour être libéré. Il ne devait même pas arrêté pour être libéré. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et demain, vous allez voir quelqu'un d'autre qui est insignifiant dans ce pays mener tranquillement son Dokhontou sans pour autant être inquiété. C'est ça que nous déplorons, le deux poids, deux mesures. Non, on nous a rien dit jusqu'au moment où nous où nous vous parlons. S'il a été libéré, ça veut dire qu'il n'y avait aucun motif valable pour l'arrêter. Il a été arrêté pour deux heures de temps. Et pourquoi Ça veut dire qu'il n'y a aucun motif valable qui a prévalu à son arrestation. Ce que nous continuons à dénoncer. Oui, mais ça, il doit le dire aussi, Monsieur le Préfet, à la même promptitude, peut-être pour sortir un communiqué quand il s'agit de l'opposition, mais est-ce qu'il a sorti le même communiqué quand un autre candidat à la ville de Dakar a fait son dokonto Est-ce qu'il a fait C'est ça que nous déplorons. Nous, nous, nous sommes républicains, nous sommes respectueux des lois et règlements de ce pays, mais pourvu que ces lois et règlements soient respectés par tout le monde. Donc nous demandons à Monsieur le Préfet, la prochaine fois, d'avoir la même célérité et la même promptitude à dire ça à un autre candidat qu'il connaît très bien et dont je ne ferai pas la publicité ici, parce que tout simplement, donc son nom ne mérite pas d'être prononcé ici. Mais nous l'avons nous l'avons nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours fait. Monsieur le maire Cheikh Gueye l'a rappelé tout à l'heure, les Sénégalais se sont toujours battus pour le respect des lois et règlements de ce pays. Les Sénégalais se sont toujours battus pour la démocratie. Madame Aïda Niang, ici présente, en 2011, fait partie de ceux qui se sont battus pour que la démocratie prévale au Sénégal, pour que Macky Sall même soit président de la République. Monsieur le maire Chargué, ici, il a fait. Les jeunes, Bassirou Sam, les autres dames qui sont là, se sont tous battus pour que la démocratie prévale. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que Macky Sall vienne et nous amène ans ou 50 ans en, en, en, en arrière. Nous n'allons pas l'accepter et nous allons continuer à nous battre pour que les acquis démocratiques puissent être préservés. Ce n'est pas à Macky Sall, ce n'est pas à Macky Sall de nous empêcher. Et il ne pourra jamais nous empêcher de nous battre, quelle que soit par ailleurs la force qu'il prétend, je dis bien, qu'il prétend détenir. Il a oublié que la force appartient au peuple, mais pas à lui. Il pense avoir le pouvoir entre lui, la force entre ses mains, mais il se trompe lourdement. Et il verra, bientôt que nous n'accepterons pas que cela puisse continuer. Après une déclaration il y a pour appeler, pour, proposer une charte de non-violence. Et manifestement à raison, parce que tous les deux camps se barricadent. Est-ce que vous avez écho de cette déclaration, de cette charte de non-violence et quelle sera la, la posture de Yehu Askani par rapport à tout ça Parce qu'on va vers des élections manifestement qui seront amplement discutées. Et eux, ils proposent une, une charte de non-violence. Est-ce que vous êtes prêts à signer cette Parce que, bon, vous êtes, vous êtes aujourd'hui les représentants de Yehu Askani. Est-ce que vous êtes prêts à signer cette charte de non-violence Mais cette charte, nous l'avons signée depuis longtemps. Nous avons dit, je pense que vous l'avez entendu, les leaders ont dit que la coalition Yehu Askanoui et promotrice de la paix dans ce pays. Regardez bien ce qui se passe, vous les journalistes. Vous savez très bien que c'est toujours l'opposition qui est attaquée. L'opposition ne s'est jamais levée une seule fois pour attaquer le pouvoir. À chaque fois qu'on veuille euh, faire prévaloir un droit démocratique qui est droit à la marche, c'est en ce moment-là que euh, euh l'État devient violent avec nous. Nous sommes pour la paix. Et c'est parce que nous sommes pour la paix que nous avons demandé à ce que les partenaires sociaux, les chefs religieux parlent au président Macky Sall pour qu'il arrête de violenter l'opposition. Quand quelqu'un dit que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, je pense que c'est cette même personne-là qui est le promoteur de la violence. Parce qu'on ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression et qu'elle va accepter, elle, l'opposition, à être réduite à sa plus simple expression. Elle sera obligée de réagir. Donc les germes de la violence, politiques dans ce pays sont du fait d'un seul, d'une seule personne, c'est Macky Sall. Et nous sommes prêts à signer toute forme de charte qui va nous permettre d'aller vers des élections transparentes et que le meilleur puisse gagner. Nous sommes preneurs et nous allons tout faire pour promouvoir cette paix au Sénégal. Nous allons tout faire pour le faire. Bravo. Maintenant, nous allons laisser la parole aux jeunesses de la coalition Yégaskenui.

le message convalence va s'adresse directement à Macky Sall parce que il faudrait que Macky mu xam ni réew mi moomu ko est-ce que jàppoon nañu ni en 2021 et je parle sous le contrôle d'une caméra comme Aïda bi nit ñi di génn ci mbedd yi di xeex en 2011 2012 ba ay nit di ci ñàkk seen bakkan jàpp ñoo ni en 2021 daañu toogaat fii ci table bi di porté waat ces mêmes combats bi leader yi di mobiliser wu di dem place de l'obélisque moom ma nga doon làqatu këram saa bu santiraan ni sedd na ca la daan ñëw mais musuta tàng ba ñu gis Macky Sall ak waa këram il faut mu xam ne ña àndoon nag moom démb doon xeex ngir démocratie tey ñooñu ñoo taxaw continuer ngir la démocratie sénégalaise mu taxaw est-ce que jàpp ngeen ne dans une république normale mën nañu tere benn citoyen mu jël flyers dem seeti sénégalais yi wax ak ñoom et je rappelle que ce programme dox mbokku démarré wul tey il y a de cela mois ñi ngi dem di waxtaan ak sénégalais Dakar waay ànd ak sunu candidat Barthélémy Diaz lan moo waral tey jii ñu xëy ni Barthélémy Diaz dootul dox Dakar lan moo waral tax tey ñu ne Barthélémy Diaz amatul possibilité communiquer avec les Dakarois ñuy wax Macky Sall ak nguuram s'il refuse le droit à Barthélémy Diaz mu communiquer avec Dakarois yi nous nous organiserons de telle sorte que le candidat de la mouvance présidentielle tam du ko mën a defat ci Ndakaaru

donc tey kenn ku si si ñun war nga mën a jóg xeex ne serait pour battre mais xeex pour la démocratie sénégalaise programme dox mbokk bi tey arrêté nañ ko jàpp ni du ñu wax ak Dakar waaye suba daañu àndaat ak candidat Barthélemy dem dans les communes indiquées vendredi daañu ko def et dimanche dañuy woo toute la jeunesse dakaroise à Grand Yoff pour ñu def meeting bi préfet boobu toog Dakar mu xam ni lii mu def tey démb dañ doon xaar mu def ko bu jàppee ni mën nañu tere génn dafay nax boppam des commissaires gelé nekk seen ay commissariat di def lu leen neex jàpp Barthélemy qui est avant tout un élu un maire duggal ko ci violon jàpp ni mën nañ ko toroxal dañuy nax seen bopp Barth du sàcckat defu fi lu ñuy bañ lu dul dox ngir Dakar ñu leen di xamal ni foofu ñu toog nous avions connu un commissaire qui s'appelait Arona si tey déggatuñu ko et que demain ils sont appelés à travailler avec le pouvoir qui un ordre injuste benn commissaire ten amul droit di ko obéir force de l'ordre yi ce sont nos frères mais pour ñu doon suñuy frère foog ñu xam ko seen xeer yi ñu yor di ko sànni seen grenade lacrymogène yi ñuy sànni dañu ko war a arrêter ils sont payés pour gérer notre sécurité mais ils ne sont pas payés pour fu ñu tourné képp ko bokk ci opposition bi ñu sànni la xeer dóor la ay lacrymogène sunu ay frères lañ ci quartier yi la ñu dëkk ak ñoom bugg ñu di jaamarloo ak ñoom ñu xam ne ñi leen koy yebal ña nga toog ci seeni kër amuñu jeunesse bu am fit bi amuñu femme bu am fit bi amuñu nit ñu am fit ñi wàcc terrain bi donc bu ñu nangu mukk ñu leen di pousser sur le peuple de Dakar et ce peuple restera debout pour protéger Barthélemy parce que nous l'avons choisi comme notre candidat et ce candidat nous comptons l'accompagner jusqu'à l'hôtel de ville de Dakar parce qu'ils savent que ce combat est perdu d'avance Barth les élections se tenaient demain dina gagner Dakar et on fera de lui le maire de dakaar et Macky Sall ne pourra pas empêcher cela il faut que loolu mu xam ko donc que toute la jeunesse se mobilise fu Barth taxaw ñu taxaw ci wetam dox mbokk wax ak Dakar waay préparer sunu meeting pour dem ci jàkkaarloog Dakar waay au soir du 23 ñu def Barthélémy Diaz le prochain maire de Dakar loolu mooy message bi nga xam ni bëggoon nañu ko lancer je vous remercie. après Bassirou Sam boo xam ni c'est une dame mais elle est jeune li ñu fi yëpp ci approfondissement démocratie malgré son jeune âge contribué na ci mais aussi elle est élue sur la liste de la ville de Dakar membre de la coordination départementale de Yewwi je veux nommer Aïda Nia vous avez la parole euh, monsieur le maire yaakaaroon nañ ni ni que heure bii duñu fi fekk et que ñu ngi def tour de Dakar maa ngi leen di rappeler article 10 de la constitution du Sénégal lan la wax dafa ne chacun a le droit d'exprimer de diffuser librement par la parole la plume l'image la marche pacifique pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et ni à la considération d'autrui te ñun li ñu doon wuti mooy dem dox mbokk et je rappelle il y même pas trois semaines au niveau de plateau parce que Petersen lañ doon dem am na ñuy génne l'argument selon laquelle dafa am périmètre de sécurité je rappelle que plateau il y a quelques semaines il y un candidat sortant boo xam ni def na fa tourner avec ses militants te tournée bi bloqué na circulation bi amoon na attroupement te kenn terewu ko ko et la loi elle doit être pour tous et pour toutes may rappeler ni que tey Barthélémy Diaz est notre candidat et nous avons le droit de le choisir que mënuñu nangu que moom ñu koy bañal dara ñu koy nangul keneen loolu en fait du sax démocratie ñun ñoo ko dul nangu la dernière des choses mooy bi ñu jàpp Barthélémy nous avons des militantes qui ont été frappées qui ont été malmenées kenn ki peut-être sax bëñam damm na ñu ngi xool naka la dem bu seeti ko hôpital ci lan dox mbokk ci lan distribuer ay flyers yoo xam ni c'est pour renseigner les gens sur le meeting bi ñuy am ce dimanche je dis que c'est anormal la question pour la charte de la non-violence je dis que le Yewwi a été la première coalition à inspirer et à parler de non-violence parce que nous n'avons jamais été violents maintenant nag Barth est notre candidat c'est Dakar qui veut de Barthélemy c'est Dakar qui demande Barthélemy, c'est la jeunesse de Dakar, les femmes, les adultes qui veulent de Barthélemy comme candidat. Et nous allons être à côté de lui pour qu'au soir du 23 janvier, l'en règle nous y a eu à gagner dans le département de Dakar. Je rappelle que lors de Barth di Guin, entouré, c'était la plupart des femmes et des jeunes. Il y a des gens qui ont pour des violence. Et je le dis et je le répète, nous sommes partisans de la non-violence, mais qu'on ne nous cherche pas. Qu'on ne nous cherche pas dans le sens où Barthélémy Tay, on a le droit d'aller au niveau de, la, de, Petersen. am nañu droit wu dem Médina am nañu droit wu wër tous les 19 communes d'arrondissement parce que d'autres candidats le font même bu dul dans le département de Dakar dans les autres départements des candidats le font te jamais au grand jamais la police Et je dois dire que la police, elle est au service du citoyen. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des citoyens et des citoyennes qui ont le droit d'avoir une ambition. Et je termine par le dire, quand on voit la prévention des femmes, vous vous rendrez compte que les femmes sont avec Barthélémy, que nous sommes avec lui et que nous n'allons pas laisser que nous soyons maltraités et qu'il soit en réalité l'agneau du sacrifice, parce que c'est notre candidat et te tànn ko parce que nous pensons que Barthélémy maire de la ville de Dakar li ñuy ci moom en tant que femme li ñuy xaar ci moom en tant que jeune pour les projets qu'il qu'on veut qu'il réalise dina ko mën a def et pour terminer nous invitons toutes les Dakaroises à se mobiliser pour ce dimanche nous les invitons demain après-demain et même peut-être ce soir à sortir ñu ñëw nuyoon teg seen maire ñu sottantey xalaat parce que duñ ñu empêcher tamit même tey buñ ko mënee def dinañ ko def fi ñu war a dem ñu dem ko parce que dakaar kenn moomu ko en conclusion nous invitons les Dakaroises à venir le 23 ci conf ci le 21 ci meeting bi ñu war a def te bu ngeen ñëwee ci meeting bi nag di ngeen gis ni waaye Yewwi on n'est pas pour la violence dañu ne nañu ñëw sañse nañu ñëw toog nañu ñëw déglu le programme que nous avons parce que au-delà du discours va t guerre bi ñu bëgg ñu porter on est des hommes et des femmes d'idées Dakar waaye am na lu ñu bëgg dégg am na fu ñu bëgg seen maire féete leen fa loolu yëpp vous en aurez la confirmation pour ce dimanche maa ngi leen di gërëm di leen est-ce que waaw en fait question bi nga posé mooy géej gi am na ndox dans le sens où en tant que politique en tant que des hommes et des femmes très réfléchis nous ne sommes pas dans la recherche du buzz et de faire du brouhaha une réflexion très poussée sur ce qu'attendent les Dakarois et je pense que même la présence du maire Cheikh Gueye war nañu ci confirmer parce que nous avons des hommes et des femmes d'expérience qui vont nous dire parce que Dakarois yi tamit je pense que aujourd'hui lépp mën nañ ko wax sauf que ñoom nit mën na leen nax kenn du leen nax kenn du leen yóbbu ci benn groupe bi pour ne leen ñëw leen voter pour moi pour moi mais c'est parce que en réalité il y a un programme qui est qui est qui est là donc il y a le maire Barthélémy qui on l'attend oui xam nga lañ ci mën a yokk rek mooy ñun Non, ne bougez pas. Barthélemy va venir. Arrive ici. Au-delà même dox mbokk bi am na beneen bu beneen bu bees bu ñu génn bu ñu nar a génn xam nga beneen bu bees bu ñu nar a génn mooy lan du ngeen ma ko laaj xam nga ban dama koy bañ a wax ñeneen ñi jël ko xam nga Barthélemy mooy jóg di dem ci askan wi di leen nemmeeku. non xaaral ko mu ngi ñëw. xaaral mi xam nga. mani xam nga Barthélemy Dias ak waa Yewwi ñooy jóg di nemmeeku ji askan wi loolu mooy dox mbokk mais am na beneen bu ñuy dem ziyaare ji sëñ mi di dem ci nit ñi nit ñi ñooy ñëw ci Barthélemy di xamante ak moom loolu xanaa kenn du ko aye aussi bu ko defee moo am ay dal am ay poñ yoo toog gars yi di nemmeekook ñoom jeunes yi di ñëw di ko nuyu Barthélemy jigéen ñi ñëw di ko nuyu góor ñi ñëw di ko nuyu mag ñi ñëw di ko nuyu imaam ñi ñëw di ko nuyu naan ka jorol ngay ñëw ñun ñoo ñëw parce que ñoo la bëgg ñoo la tànn ñoo bëgg nga nekk suñu maire boobu la ñuy génn waat et daañ ko def ci jumaa yi daañ ko def ci église yi daañ koy def même ci commissariat yi coow li coow li Barthélemy Dias xam nga coow li coow li Barthélemy Diaz bi aujourd'hui boo yore woon photo Barthélemy Diaz wala takk ndeeram sax ñu ne la non bul jaar fii mais de quoi les gens ont peur de quoi ont-ils peur

parler, je veux voir Bab. Tu me dis que tu ne vois pas. Il y a l'autre là, parce qu'on a fait un sur la page, on a fait un direct. Bab qu'on avait à Kagame, on est dedans. Ah bah, comment vas-tu Mais d'accord. Est-ce que tu es là Je n'ai même pas sorti de chez moi. Je suis même pas sorti de ma commune, on m'a arrêté dans ma commune. Madame de Théodonie. du ma ci wax du ma ci wax am ma ci wax. silence. mi ngi daw. silence silence silence. Tout à l'heure, okay. pendant le point de presse, certains de vos collègues ont posé la question à savoir, certains de vos collègues avaient posé la question à savoir, est-ce que Barthélémy Diaz est libéré Pour réponse, Barthélémy Diaz est là avec, parmi nous. La question... Nous avons beaucoup parlé Mais heureusement qu'on a trouvé notre Barthélémy Toujours chaud, toujours élégant, toujours allant, élégant, toujours allant, toujours talentueux. Barthélémy toujours talentueux. Barthélémy Diaz aime Dakar. Mais Dakar aime plus Dakar. Mais Dakar que aime Dakar. Vous avez la parole. un ami, un frère, un compagnon, en leader, un homme civilisé. Civilisé, je dis bien civilisé. Bart, ñi yore page Facebook nañ jege si pour ñu am son. voilà comme comme élément Bart parce que sinon son bi amuñu sonorisation nañu jege si. nañu jege si. Cheikh li la commissaire wax wax ko. commissaire de jëppal li nga wax wax ko. faut pas dire non non il faut wax non non. imam il faut tempérer waay ah. il faut tempérer. jàpp ay xale yu jigéen di leen torturer di leen dóor mooy kan. imam bay saaga ah. di sàcc ak portable n'importe quoi. asalaamaaleykum je voudrais je voudrais, à l'entame de mon propos, Voilà, comme je l'ai déjà dit, on n'a malheureusement pas de sonorisation. Donc, si les gens peuvent nous permettre de communiquer rapidement, je me permettrai d'abord, tout d'abord de, de remercier la présence de la presse qui est venu aujourd'hui pour couvrir et relayer l'information. Mais surtout, remercier la présence aujourd'hui de la coalition Yewi Askanwi au niveau du département de Dakar. Et euh, vous me permettrez aussi de remercier chaleureusement et de féliciter la mobilisation des populations de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, particulièrement de mon quartier de naissance Baobab. Je voudrais euh, rappeler à l'endroit de certaines personnes, parce que vous m'excuserez, pour moi, il y a des personnes qui ne méritent pas le titre d'autorité. Le commissaire de Dieppel n'est pas une autorité, c'est un autorisé. Donc je ne parlerai pas de lui, mais je parlerai plutôt de certains comportements qui ne peuvent aucunement honorer la police. Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui semblent l'avoir oublié, j'aimerais leur dire que je suis le maire de la commune de Mermont-Sacré-Cœur et qu'à ce titre, j'ai le droit de me déplacer où je veux, quand je veux et comme je le veux dans le périmètre communal de la commune de Mermont-Sacré-Cœur. Je répète qu'hier, j'avais déjà posté sur ma page Facebook, et vous pouvez le savoir, en allant sur la page Facebook pour le constater, J'avais posté sur ma page Facebook qu'aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et après-demain, vendredi, nous allons euh, organiser des sorties, donc qu'on appelle Dormbok, pour aller vers les populations de Dakar et parler avec ces populations pour leur vendre notre meeting qui est un meeting d'investiture qui aura lieu ce dimanche 21 novembre 2021 dans la commune de Grand Yoff au terrain de Khar Yalla en face de Walfadri. Je le répète, nous, nous n'avons pas les moyens de faire des mobilisations Ndiagandiaï, comme le, comme le fait le pouvoir. Nous, nous comptons faire venir les populations à notre meeting d'investiture à travers une campagne de sensibilisation. C'était de ça qu'il s'agissait. Et je l'ai déjà dit depuis hier soir, j'ai posté sur ma page Facebook qu'aujourd'hui, mercredi, je serai dans les communes de Dakar Plateau et dans la commune de la Médina pour distribuer ce prospectus. Ce prospectus, si vous le voyez bien, et toute la presse, vous êtes invités à prendre chacun d'entre un prospectus, parce que vous aussi, vous êtes invités au meeting de la coalition Yehui Askanui qui doit investir son candidat, Barthélémy Diaz, ainsi que ses 19 candidats au niveau des communes. Au recto, le logo de la coalition Yehui Askanui. Et au verso, c'est l'invitation à ce meeting ce dimanche 21 2016 à 16 heures. Alors, j'aimerais qu'on m'explique si moi, Barthélémy Dias, je vis au Sénégal ou si je vis dans un autre pays qui ne s'appelle pas le Sénégal. Parce que ce que la police a permis aujourd'hui à ce zélé de commissaire de Diopol de faire, c'est inadmissible dans une république. Et demain, je sortirai. Et je peux vous dire que demain, vous ne m'arrêterez pas. Parce que demain, je prendrai les dispositions pour que personne ne m'arrête. à la police de savoir maintenant, il faut savoir raison garder. Abdoulaye Diouf Sarr, qui est le candidat de la coalition Benno Bokayakar, ce week-end s'est permis de faire une caravane sonorisée dans Dakar, en bloquant des artères de Dakar au vu, au su de toutes les autorités de ce pays, en commençant par le préfet de Dakar. toutes les autorités de ce pays, que ce soit le commissaire central de Dakar, que ce soit le commissaire de la sûreté urbaine, ce soit le patron de la DIC, tout le monde a vu Doussard en caravane. Et Dieu seul sait qu'il n'en avait pas le droit. Parce qu'actuellement, on n'est pas encore en campagne. Il n'a pas le droit d'avoir une caravane sonorisée. Moi, je suis sorti de chez moi sans aucune sonorisation. Je me déplace de jour comme de nuit avec deux véhicules de sécurité. un véhicule devant et un véhicule derrière avec mes gardes du corps. Le soi-disant, je le répète, le soi-disant commissaire de police, parce que je n'ai jamais vu un commissaire de police qui vole des téléphones portables. Un commissaire voleur de téléphones portables, ça n'existe que sous Macky Sall. Demain, comme vous dites que vous êtes le commissaire de Dieppel, je vous donne rendez-vous demain ici. Je vais voir si ou si moi je suis le maire de mermoz Parce que demain, je sortirai de chez moi. ma ñëw rek nga leen ma ñëw dama ne dama ne s'il vous plaît Je le répète, s'il vous plaît. On n'a pas de sonorisation, s'il vous plaît. On n'a pas de sonorisation, je vous en prie, ceux qui sont derrière, na ngeen ñu may ñu mën a jokkoo ak presse bi parce que nit ñi ñu ngi ñuy déglu te lu ñuy wax dafa am solo li du meeting li du meeting dama leen di ñaan ci yar ak teggin may leen ñu rek ñu mën a daaneel. J'étais en train d'expliquer en français que il est temps de siffler la fin de la récréation. Il y a des choses que personne n'acceptera dans ce pays, personne. La vérité, je l'ai déjà dit et je l'ai répété. J'ai dit, on refuse, aujourd'hui de nous permettre de vivre en démocratie. Je me suis déjà exprimé sur ce pseudo-procès qui n'est rien d'autre qu'une machination politique pour me distraire. La vérité, Ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, ils ont la peur au ventre. Ils ont la peur de mettre certains leaders politiques en prison. Parce qu'ils savent très bien que le jour où ils le feront, ils savent qu'ils prennent sur eux la responsabilité d'écourter leur mandat. Ils le savent très bien. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, la vérité, c'est qu'ils sont en train de respirer la peur. Et nous, nous ne sommes pas là pour brûler ce pays. Nous sommes là pour pouvoir exercer des droits constitutionnels. Je vous en prie, derrière, permettez-nous de parler. S'il vous plaît, respectez les gens. Ceux qui veulent parler, vous sortez de la salle, s'il vous plaît, respectez les gens. Je disais que ce qui se passe dans ce pays est inadmissible. On ne peut pas accepter que l'APR viole la loi avec Djoufsa qui a une caravane sonorisée et que nous, on nous empêche de sortir sans cortège, sans aucune caravane, pour partir dans les marchés les gares routières, les grandes places, pour parler avec les Dakarois, pour pouvoir les inviter à notre meeting d'investiture. Je répète que j'ai été investi dûment par la coalition Yewi Askanui. Cette coalition aujourd'hui a reçu le papier nécessaire pour dire que la liste a été validée. Je répète que cette liste a été publiée. Je répète que donc nous sommes en pré-campagne. J'ai le droit d'aller vers les populations. La constitution du Sénégal, pour les idiots de service, vous m'excusez de l'expression, mais il y en a dans ce pays. Il y a des idiots de service. Je souhaiterais leur dire que la constitution du Sénégal me permet de m'exprimer par la parole, par la plume et par l'image. C'est ça la vérité. Quand vous êtes un commissaire zélé et que vous ne connaissez pas vos droits, eh bien, on vous donne rendez-vous demain. Et on verra si demain, vous êtes vraiment le commissaire dont vous dites que vous êtes aussi si demain je suis le maire que je prétends être. Parce que j'ai été arrêté dans la commune de Mermont-Sacré-Cœur, je ne l'accepterai plus. Je ne peux pas être un maire élu. Je ne suis même pas sorti de ma commune, on m'interpelle. Ce commissaire soi-disant, qui se dit être une autorité qui en vérité est un autorisé, se permet de me dire qu'il m'arrête parce que je me déplace en cortège. Mais si c'est le cas, je dois être arrêté tous les jours. parce que tous les jours, j'ai un véhicule de sécurité qui me devance et un véhicule de sécurité qui me suit. Et pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas arrêté hier et avant-hier et la nuit d'avant Pourquoi on m'arrête aujourd'hui Alors, un coup, c'est un pseudo-procès qu'on agite, parce qu'il ne faut pas que Barthélémy Diaz ait la tête à aller battre campagne. Barthélémy Diaz ira battre campagne à ses risques et périls, parce qu'il a été investi. La vérité, la vérité, la vérité aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui est une forme d'intimidation pour nous, pour nous empêcher d'aller vers les populations et leur parler. Nous sortirons dans la rue demain. Je le répète, aujourd'hui, je devais faire Petersen, je devais faire la salle de vente, je devais faire Sandaga, je devais faire Kursirimbi, je devais faire Rebus. J'avais décidé de ne même pas rentrer en centre-ville parce que même s'il arrêtait Ousmane Gomé illégal, je sais qu'il est toujours encore de vigueur. Et pour qu'on ne dise pas que Barthélémy Diaz est dans la provocation, j'avais même souhaité ne même pas partir vers le marché, Alizé, ni vers la place de l'indépendance. Et je devais sortir à 15h du plateau pour aller à la Médina, pour distribuer aux populations de Dakar un carton d'invitation au meeting d'investiture de Yewi Askanui, sans aucune sonorisation. Alors, il faut que ça cesse. on m'arrête avec Ousmane Sonko, avec Malik Gakou, c'est pour après ensuite nous jeter dans la rue, nous dire rentrez chez vous. Aujourd'hui, on m'arrête, après on ne sait plus quoi faire, on me jette à un coin de rue, on me dit prends un taxi et rentre chez toi. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Comment est-ce que... Comment, comment ceux qui prétendent, ceux qui prétendent, ceux qui prétendent m'arrêter pour des raisons de sécurité, il faudrait bien qu'ils m'expliquent au nom de quoi ils me jettent au coin d'une rue en me demandant de rentrer chez moi. S'ils n'ont pas peur, ils doivent me ramener jusqu'à devant chez moi. Peur de quoi et de qui C'est la raison pour laquelle demain, je devais faire HLM, je devais faire la commune de Biscuiterie et je devais faire la commune de Diepol derclé castor parce qu'elle est, elle est, elle est voisine à la commune qui doit nous accueillir dimanche pour le meeting. Et samedi, excusez-moi, vendredi, je devais commencer aux Parcelles Assainies et terminé à Grand Yoff. Nous avons confectionné 30 000 prospectus. Nous souhaitons inviter aujourd'hui le maximum de Dakarois possible pour qu'ils viennent répondre à cette invite. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quand est-ce qu'il est interdit au Sénégal à un candidat investi par une coalition dont la liste a été validée Depuis quand est-ce qu'il est interdit à un candidat d'aller inviter des populations à un meeting d'investiture. Macky Sall, quand il était candidat à l'élection présidentielle, a-t-il fait ici un meeting d'investiture à Cambérène, oui ou non Est-ce que j'ai le droit de faire un meeting d'investiture, oui ou non Est-ce que j'ai le droit d'inviter des gens pour venir à ce meeting parce que je n'ai pas de quoi faire une mobilisation Ndiaye, oui ou non Comme c'est comme ça, aujourd'hui on m'a empêché de faire ce que je que personne ne dise que je suis dans la provocation. La personne qui provoque ne vous dit pas ce qu'elle va faire demain. Demain, je sortirai de chez moi à 10 heures du matin, sans aucun cortège. Je donne rendez-vous à tout le monde pour qu'on ne donne pas le prétexte de dire que je me suis déplacé en cortège. Je vous donne rendez-vous au rond-point de Petersen. La constitution du Sénégal nous permet de pouvoir nous exprimer par la parole. C'est ce qu'on va faire en par la plume si on a envie d'écrire des contributions et par l'image comme on souhaite le faire demain en distribuant des prospectus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution du Sénégal qui le dit pour les idiots de service qui ne comprennent pas que veut dire la République. Ah ouais. Maintenant, j'invite personnellement un ami et un frère, le commissaire de la sûreté urbaine, le commissaire Sangaré. Je l'invite demain Si je ne suis pas autorisé à sortir, venez et arrêtez-moi chez moi pour que tout le monde sache qu'on vit en dictature. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec la police. Et ce qui s'est passé tout à l'heure avec le commissaire de Diopol est inadmissible. Je ne terminerai pas en disant que j'ai décidé de porter plainte contre le commissaire de Diopol parce qu'il a abusé de son pouvoir en prenant des militantes de Yewi Askanui en les mettant dans le violent, physiquement, personnellement lui-même, et en les, en les violentant à coups de coups de poing et de matraque. Ça, ça sera réglé. Il n'est plus question, moi en tant que maire de Mermont-Sacré-Cœur, je n'accepte plus d'avoir comme interlocuteur le commissaire actuel de Diepol. Je suis maire depuis 12 ans. En 12 ans, j'ai pratiqué presque une dizaine de commissaires. Je n'ai jamais vu une personne aussi irréfléchie que ce monsieur-là, aussi zélée que ce et pour ne pas dire aussi ridicule, parce qu'on ne ridiculise pas la police comme ça. Il n'avait aucune excuse pour m'arrêter. Sa seule excuse, c'est que je me déplace en cortège et il m'arrête dans ma commune. Comme si moi, Barthélémy Diaz, maintenant, je suis interdit de me déplacer avec mon service de sécurité. Regardez toutes les images, vous ne verrez aucune foule qui m'accompagnait. Ce ne sont que des véhicules de sécurité qui m'accompagnaient. À l'avant, il y avait un pick-up, à l'arrière, il y avait un véhicule qui me suivait. Et il appelle ça un cortège, sans aucun gyrophare. sans aucune détresse. Et la mère, il m'arrête au feu rouge. Au feu rouge. Mon véhicule était immobilisé. Vous avez déjà vu un cortège qui marque le feu rouge C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de ne pas mettre trop l'accent sur, sur, sur, ce que j'appelle les idiots de service. Maintenant, demain, c'est plus loin. Demain, même vous de la presse, je vous en prie, ne venez pas chez moi le matin parce qu'ils vont dire que c'est un cortège. Retrouvez-moi à Petersen. Nous allons rentrer dans la gare routière. nous partirons à la salle de vente nous partirons au marché Sandaga nous irons Kër Serigne Bi nous rentrerons dans le quartier populaire de Rebeuss pour inviter les Dakarois à venir répondre à l'appel de Yewwi Askan Wi ce dimanche 21 novembre 2021 à 16h te ku mu neexul ne la yàlla may xolu muñ ma ma tënk loolu ci wolof ngeen may ma te balaa ma koy wax sur ce carton d'invitation vous n'allez voir à part Barthélémy on a mis que des hommes de paix vous allez voir ici Serigne Mansour Sy c'est un homme de paix vous allez voir ici suma papa bu Serigne Moustapha Sy un homme de paix vous allez voir Khalifa Ababacar Sall un homme de paix vous allez voir Aïda une femme de paix vous allez voir Ousmane Sonko bu Vous allez voir Malick Gakou, un homme de paix. Toutes ces personnes, toutes ces personnes, avec beaucoup d'autres leaders, ont accepté, ont accepté aujourd'hui de m'investir à la tête de liste de la coalition Yahweh Askanui. Ces hommes de paix n'ont pas investi un homme de violence. Ces hommes de paix et, cette, et ces femmes de paix ont investi un de paix. La vérité, je vous le dis à vous, peuple de Dakar, la vérité, c'est que le 23 janvier il n'y aura pas d'élection à Dakar il n'y aura qu'une petite formalité dama ne dama ne le 23 janvier 2022 il n'y aura pas d'élection à Dakar ce sera une formalité parce que le peuple de Dakar a déjà choisi son camp c'est le camp de l'avenir kon nag ci wolof ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu nekk ci ginnaaw nag ngeen baal ñu amuñu micro moo tax ñu yëkkati baat gi ñu leen di may rek ñu leen di ñaan nag ngeen meññu tuuti ndax ñuy mën a jokkoo ak presse bi ñu nekk ci ginnaaw dañ leen di ñaan su ngeen bëggee waxtaan ngeen génn ci salle bi lu ñu buggoon waxtaane ak yéen mooy lu fi xew tey mu nekk lu ñaaw ci démocratie parce que lu fi xew ñëpp xam nañ ko tey mooy caaxaan bu ñu doon wooyee procès yan ñëpp ci ngeen lu fa xew procès ba nga xam ne ne gënagoo sax sa kër ñu ne dañ koy reporté wax ji mooy lan dañu bëgg a Barthélémy Diaz tal leneen ginnaaw campagne te loolu du am man damay dama fas yéene dem campagne yi incha allah parce que dañu may investir te campagne dafa am lu ñu yoon may ci sañ-sañ dox mbokk laata coalition Yewwi Askan Wi di am laata ñu ne Barthélémy Diaz mooy candidat coalition Yewwi Askan Wi yéen waa presse mën ngeen doon suma ay seede ñaata yoon ngeen dugg suma page Facebook ngeen dugg suma page Instagram ngeen dem suma page Twitter ngeen di gis Barthélémy Dias yi ngi dox mbokk ñaata yoon est-ce que mas ngeen dégg Barthélémy Dias yi ngi dox mbokk xeex am na ci wala Barthélémy Dias yi ngi dox mbokk ñu ngi tiré ay lacrymogène dox naa mbokk fu nekk dox naa mbokk Plateau dox naa mbokk Médina dox naa mbokk Grand Dakar ku lim juum dox naa mbokk fu nekk Wakaam dugg naa fu nekk biir Dakar laata coalition Yewwi Askan Wi di am loolu am na wala amut am na lu tax kon tey nag ñu ne ma man Barthélémy Dias aw ma droit dem dafi dem dafi dox mbokk lu tax fuñ ko teg ñoom lu ñu namm mooy lan mooy Barthélémy Dias tal leneen ginnaaw campagne fa ngeen naxee nag seen bopp parce que dama ne kilifa buy fooyee xelam kooku na ko yàlla may xolu wante man dama fas yéene wul fooyee suma xel te lu ma fas yéene def mooy lu ñëpp di xaar ci man ci kandida mooy dem seeti Dakar ci marché yi ci seen kër yi ci grand place yi ci jumaa yi ci jàkk yi ci église yi ci café yi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom jaxasoo ak ñoom sakku ci ñoom ay ñaan sakku ci ñoom ndimbal sakku ci ñoom ñu jàppale coalition bii bu ñuy wooyee coalition Yewwi Askan Wi parce que nooteel bu ñuy wooyee Sénégal nooteel bu ñuy wootee Sénégal yebeel bu ñuy wootee Sénégal ak jaay doole bu ñuy wootee Sénégal dafa doy te dafa nar a dakk kon nag